bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi nga xam ni noo bokk liggéey bi Cheikh Mouhamadou Bachir mii nga xam ne mooy yor baatu jottali gi ak sëñ sëñ Mouhamad Lo yi nga xam ne moom lañ dénkoon eh, eh, wattuk dëkk bi ñu ngi nii teew wax ji nag dafa war waaye ku booy wax wax jaam njëriñ eh, wax bi daani wax waxu lislaam wax du ne noo ngi ci mosuñu cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi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 junni at ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn du ah, loolu la mu seesu la noppi waxuma la nag li nga xam ne moom mu ngi ci téere yi lépp ngi ci téere yi te it ñi nga xam ne ñoo fi nekkal ñoo wutu yonent yi te sëriñ bi kenn jiitu ko ca wax na musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi nit seen boroom moom mën leen jëmale seen boroom bind na it ba fi loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag gannaaw dogalu sa borom moo xam la muy dogal yoonu kenn nekku ci moo xam li li li li li li war a def moo xam nam koy defee moo xam li tax mu di ko def loolu lépp mu ngi ci mu ngi ci yàlla amma jaam ñi nag ñi nga xam ne dañoo topp la lislaam digle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 jullit ko def ak sa borom taalibe bi Sëñ ko def yaag ya ya ya ba tey yaag sa borom ndax sëriñ bi mos a juyoo ak boromam réeruwul la borom bëgg rek la borom digle rek moom la digle la borom bëgg moom la digle la borom tere moom la tere. la boroom bëgg la boroom bañ bañ loolu leer nañ amma ma nag loolu mosu fee jóg yàqute mosu jóg te ki ko ki li ci ëpp li ci gën a bare ki yàqu moo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 jeexalu dundam li mu fi nekk ci loolu rek la nekk la fi nekkee kon nag loolu dëgg la faaw nu tàmbali cosaan cosaan li waaye li ci am solo moo di sëñ Béthio dëgg la ci lam la juddu ci ñooñu Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox gi boppam Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw kon waxoon naa ko njaboot gi muy Sëriñ Saaliw waaw jëkkee wax ak ñoom dama leen ne bay Bàcce moom suñu yoon noppi nañ ci suñu yoon nekkul ci moom nan ko bàyyeeg suñu borom ak sëriñ bi waaye nun mbooloo mi nag li fi sëriñ bi rek nañ ci nekk loolu laa leen nekk leen ci loolu bi ñu amee dolli ko gën a jaaxle suñu diggante ak mbooloo mi ma leen dem leen loolu yi ma leen wax dem leen wax kon moo nekk leen ci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 ndax mbooloo mépp ko bokk te kenn ku ne am na ci wàll